mais Tamba tey lan nga yëg ñu gis la nga jël ay. contentement rek barke Serigne Touba am contentement bu baax xam ñu gis la nga woote ndogu ànd ak say ah, say mbokk génn jox gars yi doon ah, ndogu ñoo xam ne dañoo nekk ci yoon bi circulation bi téyeen ah, lan mooy il waral initiative bu rafet boobu. bon chaque jour dañ koy def nag wax dëgg yàlla bi koor commencé ba léegi xam nga chaque jour dañ koy def te noonu lañ ko nar a jàppee incha allah ba koor gi jeex xëy na tey cant gi ci yokku. ak xasida yeeg yooyu moo tax sax mu demee nii ngeen ñëw mhm. mais amaana ñun chaque jour dañ koy def chaque jour bi koor commencé ba léegi bés bu yàlla sàkk maag sama gars a dañ koy def mhm. waaw ñu gis la tamit ah, dañoo yaakaar ne affaire tamit jeexagul la parce que gis nañ cant yi a jëkkati non sax ba ci kanam kanam mhm. ba ci kanam ay mil yu ñu soog a waxu cant incha allah mais tamit ah, duñ ñëw teewtu duñu waxtaanee ci actualité làmb non tey moom du bisu làmb ci weeru koor lañ nekk xama dañu am ay dëj xama dañu am ay dese mais ku ci mel ni Modou Ngom xama di leen ñaanal yàlla mu xaarale àjjana ak suñu benn yaay xam nga mère Diallo moom sunu yaayu bopp la xam nga di leen ñaanal yàlla tamit gars jàpp nañ dat la sama bàyyi ma ñaanal sama yaay ji ba pare mère xam nga mère Fatou maa ngi koy ñaanal yàlla fi mu tëdd yàlla xaaree ko àjjana yi gën a kawe ak xarañ Medina Modou Ngom xam nga maa leen di ñaanal suñu borom tey bis bi xam nga ñaanal lañ leen ci bu baax a baax ci wàccee kaamil bi ak képp ku dëddu àdduna suma maam ak ñëpp di leen ñaanal yàlla xaare la àjjana képp ku génn àdduna waaw tey nag moom mbirul du mbiru làmb mbiru mais le 25 décembre waaw man nag wax dëgg yàlla nii laa ko déggee depuis démb hmm. démb daal laa ko dégg démb nii laa ko déggee nii nii amaguma ci lu ma leer wax dëgg yàlla hmm. xam nga te lu ma leeragul moom mënuma ci sori wax dëgg yàlla loolu kese la mais bañu ma cee wax waaw di ñaan yàlla daal yàlla na fi jàmm yàgg xam nga di sant sama gars yi nag parce que lépp ñoom la man kese munuma dara man kese duma dem lépp hmm. ñoom ñii ñëpp la xam nga gis nga leen ku ci nekk yaa ngi volonté wu xam nga loo mën ak loo mënul xam muy ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñëpp su ma limee damay juum ñëpp mais saa waay anam ñëw na wala Modou mi ngi boo demee léegi di nga ko fekk mi ngi foofu di ndogu xam nga ñun dañu yóbbuwoon ndogu moo tax hmm. mais nañ dem ñu xool ngay <laughs> jaajëf nga am tey ñëw fii ci kiw papis bi doon euh, distribué wu ndogu tey bi nga ñëwee nan nga ko gisee en tant que mbégte rek weeru koor lii la séddale te papis suñu frère la su dañuy ñëw nit bësam la kenn du ko tuutil bësam mënu ma ñàkk ñëw moo tax ma ñëw waaye dama nekk si tawat fu mu nekk nii xam naa damay ñibbiwaat di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla eggale si jàmm lépp lu fi waaye ñaan yàlla na nangu ku fi ñëw sa soxla ak say aajo say aajo njaboot yàlla na ko yàlla faj. gisee organisation organisation bi jaar yoon fii ay frère rek a fi nekk kenn raxuñu ay frère ñu bëggante ñoo fi nekk ñu seen xol rafet te seytaane amu fi seytaane fu mu nekkul rek jàmm fay am maa leen di bëgg di leen sant. jaajëf jaa ñu delloo ziar. waaw tey ñu gis ne tey de ah, kii def euh, Papis def initiative bu rafet bi génn jox gars yi ndogu ñooy laaj en tant que champion euh, nan nga ko gisee. waaw alhamdulilah di ko di ko rafetlu rek parce que ma ne ko lii moom jaamu yàlla la. Hmm. ni ñuy woor ba ngoon nga ñëw di leen jox ndogu. ma ne ko loolu jaamu yàlla ba tax na sant yàlla rek di ñaan xamoo yàlla na yàlla nangul rek nangu yoolu yëpp incha allah. gis nga oyof ñëw génn saafante gars yi ànd ak ñoom julleen ak Modou. ah mais non loolu moom li may wax sànq laa lay wax eh. yéen yéen instant yéen suñu gan ñu ñoo leen dalal man fii lañ dëkk inwee xam nga lu ñuy xewle ñun ñëpp macha allah ñoo koy ànd xamoo nga defandoo waaw ba yàlla daal def ci xewal ñu lay jaajëf